mais mu ni ma. li nga bëggal sa bopp. li nga bëggal sa bopp. bëggalees la ko. bëggalees la ko. ma nga fa ceerno. ma nga fa ceerno. ku ñu boolee ceerno wëccu ñu la. ñu boolee ceerno wëccu ñu la. ba mu dikkee. ba mu dikkee. xam ne mënut ta ñàkk a dikk. xam ne nag mënut a ñàkk a dikk. mu ne ko. mu ni ko. sëñ ba day dalaa dimbali. sëñ ba day dalaa dimbali. boo toogee da nga gis mu nga xam ne moo xar kaabaab yi. waaye turkuha bila alsaq nee na du bàyyi kaaba yi te du ca dugal dara su mel noonu def dara da koy da da koy mu ko xar te nee na nag def ci dara du ko xar bu ca narut woon a def dara bu ca narut woon a def dara du xar kaaba kon du xaru kaabaam mu wax ci alquran yi mu waxaat ci alquran yi ndax moom dañu ko warlul li ndax dañu koo warlul sunu borom sunu borom dafa wax ne wa maa min daabbatin fil ardi illaa ala llahi rizquha nee na amul dara luy dox ci kaw suuf lu dul warlu naa ni maa gàddu wërsëgam moom loola wa yaalamu mustaqarraha te yàlla nee na maa xam fa nga xam ne falaa teg woowa wërsëg wa mustawdaaha ak sama ko dénkaan kullu fi kitaabin mubin def naa ko ci dig bu leer nañ mu dellu wax ni mu dellu wax ni wa ka ay min daabati nee bari na moos ay daaba laa taxmilu risqaha te ba muy dox kat ñukki ñukki yenu waarewul wërsëgam allahu yarzuquha wa iyaakum yàlla moo koy wërsëgal ak yéen ñii koy seetaan wa samiul alim ndax mi ngi dégg seeni soxla te xam na it nu mu toll yàlla nag yàlla nag li mu diggee li mu diggee xam ne da koo warlu te fekk daf koo warlu da wax ne laa yoxlifu l miiaad te nee na moom du ma war mukk ab dër wala yoxlifu allahu waada te yàlla moom du dër lu mu la digit dana la ko jox te man na ko te it mën na ko te moo ko warlu te moo ko warlu kon bu yóbboo ñu rafet njort bu ko bu ko amutoon wala mënu ko wala mënu ko kon ñu ne ma daal di loolu de moo di ji ur xooba yëpp saa bu dikkee mu ko xaaral ba mu xaay ba mu xaay Tuubaa kon mbokk yi ñu ngi fàttaloo ci suñu bopp di leen fàttali lépp loo xam ne moom lañ ciy digle suñu bopp la ñuy tere suñu bopp lañ ca jiital ñu yàlla te ragal yàlla te wéetal yàlla te jaamu yàlla ndax nit ki àdduna bu àllaaxee daal ci yant yooyu lañ ko yaakaar kon nag ñu gën ci farlu bu baax li ñuy wax léegi ci xutbu arab bi ñëpp da koo dégg yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum ittaqullaah haysu kuntum in kaana yu'minu billaahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut waaye nag ñàkk bi dégg moo tax ñu ci dolli li ñu ci dolli rek njëkkoon di ko jàpp da ngeen farlu ci topp yàlla ñi nga xam ne dañoo aju ci bis bi itam ñoom ñoo jiital sax ndax mooy bis bi la aju loola moo di lii ma def léegi muy julli affaire ñi aju ci bis bi itam ñoom ñoo jiital sax ndax mooy ci bis bi la aju loola moo di lii ma def léegi muy julli ak tabaski yi tabaski yi dafay def lu ma tafoon ndax àllaaxira yaari kër a fa ne yaari kër yooyee dafa am yoon ñu ko sàkkal wax ni ñoo ca jëm këru teraanga ga ak këru mbugal ga yàlla na si yàlla musal moom wax siraat moom la teg ci kaw jahannam te kenn amul fooy dox fudul foofu te siraat mi ñu wax ne ni la ñàng loo xam ne dañu moo dañu gën a sew ab kawar wax ni moo gën a ñaaw jaas yi te ca la aw dem ci kër yooyu bu ca doo cay dem te ca suuf itam ñu ko gàll ci kaw jahannam bu la basee jahannama ngi ci suuf yàlla ñu ci yàlla mos loola nag dañuy wax ne tabaski yi yonent bi daa wax ni ci hadis na ngeen di baaxal seeni tabaski ndax mooy doon seen la ngeen di war di ko jéggee siraat xafamu baxaayaakum fa innaha ala siraati matayaakum kon loolu foo xam ne foo aw ca ngay aw kon noonu la noonu la mel te bu nga fee amee loolu moom mat naa fonk mm-hmm. te itam xam naa ne képp koo xam ne jox nga ko sa yitte bis bii ba bis bii jël si dinañ yàlla dana la ko fa jox waaye jekk ba xam ne weer yu ter na ñoom kër kër yi di sonn di dem ci aw nit ñëpp ku ci ne boo ko fannoo rek yàlla dina la ci dimbale balaa bis bee del si boo ko jiitalee ci boo ko boolee ci yitte te itam xar mi nga rendi deret jeeg sibbiri seeg kawar yi ñu saxal bëjjën yeeg ay tuyaaba lañ la koy bindal kon loolu bu bisam dikkee balaa dikk mat na faa gënd ko te bu dikkee nga def ko mu baax noonu ñu ko santaane am na it loo xam ne ci bis la moo di ñuy wax takbiraatu minan kabar yooyu ñuy def di ko wax yooyu minan ñu ngi dale nag ci tisbaar bii ñu jëm ba ca bisum ñeenteel ba bu ñu jullee suba booba nga koy bàyyi foofu jullee farata rek nga kàbbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd soo ko mënee noonu di nga kàbbar ñetti yoon rek soo jullee julli farat dana ci tis daanaka tey bi te ci bisum ñeent ba boo jullee suba nga bàyyi ko nag. donc hmm. yooyu itam ñoom farlu ci waxtu yu juróom ndax ni ko yonent bi misaale wax ne ndax koo xam ne ak dex dafa dox fi sa buntu kër bu ne nga sangu juróomi yoon ndax da nga dese bàkkaar da da nga dese ñu eh, ne la noonu la noonu la juróomi julli yi mel ñu ne bu ne nga sangu juróomi yoon mais kooku du dese ab tër noonu nag ne la ne juróomi mel te kat loolu dégg ci àllaaxira su ko dalee ci sukuraat bàmmeel beeg ñitaay beeg xataay beeg tàpp gëm lay tàpp tër bu yàgg beeg ba ci bis boobu lépp bàkkaar rek fi sonal nit ku tàggoog moom rek dara du la fa sonal yàlla na yàlla tàggale moom naka itam fi mu toll it ñu des ci weeru tabaski yi moo des ci atum julli te bu at mi deewee rek nga xam ne seen yëri du mbay ñoo seen waxtu asaka dafa daal di jot moo tax koo ci xam ne dafa yor ak jur te asaka war ca mu am misaab ba nga xam ne war nga ko génne nga ko nga ko génne bu at mi deewee rek ñu daal koy génne jox ko ñu ko war koo xam ne yàlla da laa jox dara ci xaalis donte mat na ñaar téeméer nga yor ko ren ba déwén nga la nga yor daal mat na loolu ren ba déwén nga dund ci juróomi doy noonu nga koy topp nag ñaar téeméer yëpp koo xam ne da ngay wëndeel boo jaayee lii bu jaree nga jëndaat leneen kooku it day daal di seet mboolem la mu yor ci xaalis ak la mu yor ci la jaragut baat mi teroo rek mu daal di seet lépp yàlla koy génne noonu ñaar téeméer dina juróomi dërëm te loolu weex na tey asaka mbay mi moom waxtam di ko gis ndax moom bisu bu boobu ko saa te itam ñun di ne kenn joxul sa bopp ku am rek yàlla moo la jox bu fekkoon kenn jox wër asaka wala sarax doo gis koo ko jox ndax ku nu jox nga sa bopp lu ko doy doo soxla wo kenn ku nu ko jox hmm. ah tëkk yi nga xam ne nag alxuraan wax na ko ci ñàkk génne asaka yi nit na daw bu baax a baax boo demee ci solis Ali Imran bi wax wala yaxsibanna alladina yabxaluuna bima aataahumullahu min fadlihi huwa xayrun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquuna ma baxiluu bihi yawma alqiyaama mu wax ni fekkee la leen yàlla jox ñu ca génne wut loolu ngir <coughs> yàlla bu gis ci ba loolee dañ koy def am ngëm ba mu wër la ngëm ba googee dañuy wax ni gaan lay doon gaan ko dañuy wax ni doon mooy mooy mooy wër sa dox da yor lu mel ni ay jubb di ko roof ci say bakkan boobaa dina wax ni na man nii naa sa alal ba ma waroon ci àdduna te daawoo ci génn xaq yàlla xanaa kan suk xanaa maaluk boo demee ci suuru tawbati moo wax ne wallazina yaknizuuna zahaba wal fiddata wala yunfiquunahaa fi sabilillah fabashirhum bi azaabin aliim yawma yuhmaa alayhaa fi naari jahannama fatukwaa bihaa jubaahum wa junuubuhum wa zuhuuruhum di leen wax ne haadaa maa kanaztum li anfusikum wa haadaa maa kuntum taknizuun bu dee xaalis ak wurus moo bañ koy génne asak dañ koy tëgg ay sebre yowmal xiyaam sañ ko ci sawara ba yi daan def dina ko ñaas ci sa ak ci sa jëf ci sa ginnaaw di la wax ne lii mooy la nga dencan te joxe woo ci asak su fekkee ab buur la lal fi suuf yowmal xiyaam nga tëdd ci suuf bu di dox ci sa kaw di dem ak dikk ak seen tànk yooyu yëpp ba bañ lay àtte nga xam ci loo nekk loolu nag nees na ko wattandiku fii waxtu am bu wóoral yàlla te ñàkk yàlla ko joxul ci ci ci ci ci soobareem te itam ki la jox wax nañ ne la fabal lu tuut lii ci li ma la jox joxal ma ko ci nga xam ne maa ko xañ ci sama coobare war naa woyof war na ko sant yàlla war naa woyof nga boo seetee asaka xaalis bi wala wurus mm, matul matul fukkeel moom fukkeel bi ñu xaaj ñeenti xaaj la mu noonu woyof bi bu dee mbay mi fukkeel ba lañ lay wax bu fekkee asamaan na ko suuxat fekkee taw bee ko ñoral fekkee yaa ko suuxat nag ci ay tool genn wàllu loola ngay def genn wàllu fukkeel bi bu ko ko seetlu woyof na fi yow mooy kon farlu leen ci bu baax ginnaaw bu at mi di des ci tabaski yi rek bu dee at mi jeex na lépp loo xam ne ab at la lépp lislaam des koy seet ci weeri jullit waaye desu ko seet ci weeri tubaab nga xam nga ñoom dañuy teew tabaski ñoom ku seet ci weer yi dañuy ci weeru koor ko def dañuy woore noonu bu ñu fi yàlla bàyyi ba tam xarit noonu lañ koy def ci weeru tam fa lañ koy def bu gàmm dikkee ci lañ koy def loolu nag ci nga xamee ni kon lépp loo xam ne artib lislaam foofu rek lañ ko war a awale ñu ngeen góorgóorlu bu baax rek te war lu baax te itam ah lii xam ne da ngeen wàcc lépp ngir moom seen yaakaar yi àdduna bi àllaaxira yëpp ci la nekk mooy fonk leen ko mooy taalibe bi ndax koo ci lépp ngir lenn sa yaakaar yëpp nga jëme ko ci lenn sa yëg àdduna bi àllaaxira yëpp ca nga ko jël loolu warul caa sàggan war nga ko fonk bu baax fonk leen ko bu baax te jàpp ko bu baax te mooy li nga xam ne itam mooy mooy li ngeen ni wax loo xam ne Sëñ Tuuba da ko digul kenn alquran diggu ko kenn hadiis yonent bi diggu ko kenn loolu ku koy wax nga topp sa bànneex wala njot te mu daal di wan ne Usmaan ne tegoon na illa mooy a na laa wax ni mu la xaqu seya woote rek laa ci la waaye loo xam ne alxuraan dugg ko kenn yonent bi dugg ko kenn suñ dugg kenn ko defee ne yow nga naan dama dugg ci gaal gi duma wër sama duma yan wop a waxi caaxaan yoo xam ne dama fen loolu amul solo yéen génn leen ci rek góorgóor leen daal yéen góorgóor leen fonk taalibe loolu daal mu ne ginnaaw yaakaar ñëpp ci la daje daal suñu jóg àddina bu yàlla xëy ci lañ ko yaakaar nañ ko fonk te it suñu tubaab yi fi jógee léegi ngi toll ci juróom benn fukki at ak ñeent man la yet boo ko seetee ci taarixu hijriya bi loolu gàtt na ci dundu taarix lool noonu ne koo xam ne diggante boobu da nga fa yokkat wala nga bëgg dafay ne lu baaxan dafa baaxatut wala taalibe gi daf koy jaratut wala la fi nekkan dafay nekkatut wala la amoon daa amati da koy waru ndax la ko dalee ci taabi taabi yi ne ba ba suufiyatu tàmbali ko ba fi ne tariqa yooyee dox diinu waxuma la wax ne moom fii rek la toll njabootam gi nekk fi jëwriñam gi nekk fi ko ku defee ne dafa sodd la fi nekkan moo ku ko wut nañ ko doon wut te def nañ doon def danga ko am ku defee ne wéy na nag wala nga defee ne matatu la wut wala dafa amatu di wax leneen jamono bi nangam jamono bi nangam da ngaa a ñàkk loolee rek mm-hmm. waaye loolaa ngi fi ba tey loolu bu leen ci bokk mu ko ñëw góorgóorlu leen ci te itam rek bu liggéey di jox keneen di jëw fekk nit nga di ko jëw wala ngay rambaaje wala ngay fan wala ngay wax leen yooyu da di ay yoo xam ne ak bàkkaar yoo xam ne dafa rëy ba buur boo koy àtteel boppam yoomal ko yàlla mais ñëpp jaale nañ ko def nangam su naan sàngara nañ ko def nangam waaye ñi moom réew bi sëñ bi nee na moo tax buur boo koy àtteel boppam ah ba noppi it nga nga lëbb keneen jëriñoo ko ndax dañu fab sa tuyaa ba jox keneen loolu rek danaa def di lëggéeyal keneen loolu borom xel waruñ ko def borom comme ni waxtu nga xam ne te naaj bi ñu war a ñaan rek hmm. ñu ngi ñaan daal ñu ñaan yàlla suñu borom nawet bi ñu wax indi na ko nga xam ne buñ ko doon defal suñu bopp fi la ñu koy def yàlla ko yeggalee ba ñu yegg fa nga xam ne ko yoralee suñu bopp fa lañ ko yóbbu te def ci barke def ci ak nit moo la ñi nga xam ne ñoo ñu koy yàq yàlla bi ci yàlla indi dara ci ñoom ñaan yàlla indi barke ci réew mi ak maatam te def fi jàmm ñi nga xam ne dañuy liggéey leneen yal na yàlla barke ak xéewal ci seen liggéey te borom jur gi ñu jaayee ko jënd ñu yor seen loxo di ko liggéey seen nekk ñoo ñuy tukki nekk feneen di wuti lu ñu ci réew ku si ak la ñuy liggéey yàlla ci yàlla def barke ak xéewal te def ci réew mi li moo di xaw ci réew mi daanaka àdduna sëpp ñëpp di taw di wax ñàkk bi ak ñàkk dund bi ak fas bi ak bakkan yi faatu loolu suñu borom dafa wax ci alxuraan ni danaa leen ko nattoo wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwaali wal-anfusi wa-th-thamaraati maanaam leen mu too moos ragal loolu moo di ñàkk am jàmm asnaf rek laa leen cee jox ak xiif fi ne ku ne boo xëyee ngay fexe loo añee bu ngoonee nga fexe reere ji ak wàññi ko alal loolu ku ne gis na ko ak wàññi ko xawran ak meññet yi gis nañ ko toog bu ba xam ne dangay mel dangay booba ci des dara wala arin bi def noonu dara du ca génn moo wax samaraat waaye gis nga lam ko mujje wa bashir saabirina alladina isa asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag na nga dëggal yow yonent bi ñi nga xam ne muñ nañu ci yoon yi te bu leen naf dalee ñu delluwaat ci yàlla ñu dalal leen añet ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun loolu rek mooy li xew ci àdduna si ñëpp a ngi tawat ñu amee seeni mécc ñu amee leneen ñu bay ñu lëfi waaye lii rek ñëpp la rek bu yàlla indi bu ko dundee rek dana ko te ginnaaw ba mu ko waxee yàgg na kon ñooñu bokk ci assaabi bi na ñooñu rek tax na def jàmm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 طول لنا أمرنا وصحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله واصطفنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلموا على النبي وسلموا واقضي به حاجة كل شيء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرعائج وحسن الخواتم ويستسقى الأمام وفيه الكرم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد بكل معنى منك صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ولا تنسوجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات नाम का कुछ नहीं पता है وكان وخم ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko asalaamaaleykum mbooloo mi eh, sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi monsieur le gouverneur te di ko xamal ni ko sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ci sa kàddu yu rafet yi nga xam ne nii waxoon nga ko fi dellu waxaat ko fi. bii mooy ñetteel bi. nee na bii mooy ñetteel bi. ñi nga àndal ñëpp. nee na mi ngi nuyu it ñi nga àndal ñëpp. di leen sant itam. di leen sant itam. di la ñaan itam. di la ñaan itam. cant gi. cant gi. nga jottalil ma ko président. nga jottalil ma ko président. ndax ci fan yii rek jot naa leetaram. ndax ci fan yii rek jot naa leetaram. mu wax ni yow lañ yebal si yaa ko fiy teewal. mu wax ni yow lañ yebal si yaa ko fiy teewal. mu wax jox na ministre yi nga xam ne ñu am loo xam ne màggal gi yittewoo na ko. mu wax ni jox na ministre yi nga xam ne nii ñoo amee lépp lu màggal gi yittewoo. jox na leen ci ndigal. jox na leen ci ndigal. ndax ñu toppatoo ko ba lépp mel nañu ko bëgg. ndax ñu toppatoo ko ba lépp mel ni nañu ko bëggee. ñoom it def nañu ko. ñoom it def nañu loola. def nañu la ñu mën. def nañu la ñu mën. ñu ngi koy sant di sant. ministère yooyu ñu joxoon ndigal. nee na nag ñu ngi sant président di sant ministère yi mu joxoon ndigal yooyu. ak yow mii ak service yi nga ànd. ak yow mii ak chef service yi nga ànd yëpp. ndax bi ñu koy bëgg a def. ndax bi ñu koy bëgg a def. dangaa ñëw fii. dangaa ñëw fii. ànd ak ñoom. ànd ak ñoom. ngeen seet lu ñu soxla woo. ngeen seet li ñu soxla woo. ngir dem toppatoo ji ko. ngir dem toppatoo ji ko. ba ngeen demee itam. ba ngeen demee itam. def ngeen ci seen kéemtalaayal kàttan. def ngeen ci seen kéemtalaayal kàttan. yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. moom itam. moom itam. moom kii moom kii président. ginnaaw joxe na ndigal. ginnaaw joxe na a mel. ngir bëgg màggal gi mel na mu war a mel. yal ko yàlla fay. moom it yal na ko yàlla fay. moom ñi koy jàppale. moom ñi koy jàppale. ndax. teew gi ci bis bi rek. teew gi ci bis bi rek. warees na leen cee sant. warees na leen cee sant. ndax bis. ndax ñàkk. dadul mu am bisub njàqare. ak bisub mbég. boo ci nekk nag. bu ci nekk nag. ku dikk ànd caag yow. ku dikk ànd caag yow. war nga koo sant. war nga koo sant. fa yawmal musaa wa yawmal musaa nee day am bis rek boo xam ne dañ cay bégloo ak bis boo xam ne ni suñuy naqar lay doon li ci des nag li ci des nag moo di réew mi moo di réew mi fii nu nekk fii nu nekk nii nga ko waxee léegi nii nga ko waxee léegi yow góor na yow góor na ñàkk nañu mbay lool ñàkk nañu mbay lool day aajowoo nañu ba aajowoo nañu ndimbal. ndimbalal dund. ndimbalal dund. ak jublu. ak jublu. xam naa ne sax. xam naa ne sax. gouvernement bi. gouvernement bi. dimbalee na ba tey. dimbalee na ba tey. man bii ñu bàyyee bor yi sax. man bii ñu bàyyee bor sax. fekk na ma xam ne mënut li ñuy def mënut a xam fekk na ma xam ne lii ñuy def mënut a wéy. at at mu ne ñu jox lay jiwu ñu jox lay jiwu bu fekkee ñorle ko ñu ko fu mu mën bu fekkee ñorle woo ko ñu jëli ko fu mu mën a nekk yëpp la ko ah te doo ko fay te doo ko fay xamoon naa ne loolu mënta wéy xamoon naa ne loolu mënta wéy waaye nag waaye nag bu tee daal ren na ngeen leen dimbali ci dund bi ak jiw bi bu tee daal ren na ngeen leen dimbali ci jiw yi ak dund bi ndax ndax wolof day wax ni wolof day wax ni lu sulupi ndey lu sulupi ndey lax lax lu sulupi ndey lax lax da ngay toog da ngay toog lu ngeen ci man rek na ngeen ko na ngeen ko kon nag lu ngeen ci man rek na ngeen ko def ndax nawet bu dikkee ndax nawet bi bu dikkee te amuñu jiwu te amuñu jiwu du ñu mën a liggéey du ñu bu ñu amul dund bu mën a taxaw liggéey ba mën a taxaw liggéey du ñu mën a liggéey ma walbatiku nag. ma walbatiku nag. waxtaan ak taalibe yi. waxtaan ak taalibe ak bokk yi ma bokkal Cheikh Ibra Faty. ak bokk yi ma bokkal Cheikh Ibra Faty. lii sama wax. lii sama wax. ci ñoom la war a jëm. ci moom la ci ñoom la war a jëm. ndax min xusni nee na bokk na ci rafetu islaamu nit. bàyyi lépp lu ko amalul njariñ. ñoom nag. am na ñoom lu ma leen war a wax. am na ci ñoom lu ma leen war a wax. ndax ndax. fii ma toog. fii ma toog. ki nu boole. ki nu boole. ba tax ma toog bi ba moo tax. moo tax ñoom laay jëmale samay wax. ñoom laay jëmale samay wax. ak ku ko dégg. ak ku ko dégg. bëgg caa jariñu. te bëgg caa jariñu. li ma leen di dénk. li ma leen di dénk. di ko dénk sama bopp. di ko dénk sama bopp. moo di. moo di. taxaw ci diine. saxal ci diine. saxal ci lislaam. saxal ci lislaam. ndax. ndax. li tax nga xam ne moo tax ñu bind. ndax li tax xam ne moo tax ñu bind nit ak jinne. bind nit ñi ak jinne yi. war nañ caa nekk. war nañ caa nekk. sunu borom day wax ci alquran. nee na sunu day wax ci alquran yi. wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. binduma nit ñi ak jinne yi lu dul ñu jaamu rek. maa uridu minhum ci ñoom wenn wërsëg wa maa uridu an yut'imun bëgguma ñu leele ma dara inna allah huwa razzaqu ndax yàlla mooy wërsëgalkat bi dul quwwatil matin te moo am kartan bu dëgër bi mu waxit ni mu waxit ni allahu alladi xalaqakum yàlla mooy ki nga xam ne moo leen bind yéen te moo leen di wërsëgal ginnaaw ba moo leen di rey bu ca kanamee summa yuhyikum dekkalaat leen ndax li ngeen doon bokkaaleel kenn mën na ci loolu. subhaanahu wa taala tudd naa seetlu yàlla sore naa ngeen di man loolu. mu waxit ni. mu waxit ni. afa xajibtum annamaa xalaqnaakum abathan. mu ni yéen ndax da a jortoo ni dama leen a bind ngeen nekk fii rek ngir foofu. wa annakum ilaynaa laa turjaun. ngeen defee ni ëllëg du ngeen taxawaat fi sama kanam. mu wax nii. mu wax nii itam. ay yaxtibu linsaanu an yutraka sudan. muy ndax nit dafa jortoo ne dañ koo bind muy boy rek ni ba yii. kalla. déedéet. kon nan farlu ci loolu. kon nan farlu ci loolu. te itam. njaboot bi. njaboot gi na leen awale ci lislaam. na ngeen leen awale ci lislaam. ku yàlla jox ak njaboot. ku yàlla jox ak njaboot. na nga ko xamal na alquran jëkk ci dënnam na alquran jëkk ci dënnam na ko xamal tawxiid na ko xamal wéetal yàlla ndax jamono ji ndax jamono ji mm, bari nay soppiku bari nay soppiku koo xam ne amuloo tawxiid koo xam ne amuloo tawxiid mm, li wax léegi ci àdduna si li wax léegi ci àdduna si mën na laa fëkk mën na laa fëkk ndax ñu wax si yow ndax ñu ngi fi wax ay communiste ñu ngi wax njàng mi ne doon almaniya ñu ngi nekk almaniya maanaam ñu ngi wax ni nañu faslu diine wa dawla ñu ngi wax naan nañu teqalee diine ak nguur ani dawla mu jóge ci nguur sëriñ ca derba ka ca des ka ca des ka sax ñenn sax di wax ni sëriñ si dañuy tardé nit ñi di wax ni sëriñ si dañuy tardé nit ñi li ma leen di tontu fii nag. li ma leen di tontu fii nag. moo di. moo di. ku aw ci ndigalal sëriñ si. ku aw ci ndigalal sëriñ si. bu fekkee la yàlla digle moom la digle. bu fekkee la yàlla digle la sëriñ ba digle. bàyyi la yàlla tere mu tere ko. bàyyi loola la yàlla tere mu tere ko. te ànd ko moom di ko def. te ànd ko moom di ko def. du tardé adduna du tardé àllaaxira. bu waajoojee tardé adduna itam du tardé àllaaxira. na ngeen fonki taalibe gi. na ngeen ndax. ndax. ndax dañoo amul lu dul lu dul Serigne Touba. te waxoon fi daaw ni. te waxoon nañu fi daaw nu am moo ko may. lu nu am moo ko may. du ay diplôme. du am ay diplôme. du bokk ci néeg boo xam ne da daa faloo nañ daa faloo bu jëkk du bokk ci néeg boo xam ne dañ daan faloo nañ daan faloo bu jëkk lislaam rek lislaam rek ak sëriñ Touba ak sëriñ Touba moo nu fal lu nu am moo nu fal lu nu am koo xam ne dañ daa fal nag koo xam ne dañ daa fal nag boo fàttee kala faloon ak lala faloon boo fàttee kala faloon ak lala faloon boo folliku wutit boo folliku wutit fal ga dana danga daa yees lëf fal ga dana danga daa kon nanu mooy ci bu baax kon nanu mooy ci yaar bu baax dafa am nag loo xam ni. dafa am nag loo xam ni. daawuma ca yegg. daawuma ca yegg. ndax ginnaaw Serigne Touba. ndax ginnaaw Serigne Touba. Cheikh Ibra Faati mooy sunu bunt ci moom. Cheikh Ibra mooy sunu bunt ci moom. mooy bànqaas bi ñu jàpp ci. mooy bànqaas bi nu jàpp ci Serigne Touba. ma bëggoon wax lëf. ma bëggoon a wax lëf. ci loo xam ni. ci loo xam ni. Serigne Touba ko ko bind. Serigne Touba ko ko bind. mbaa budul lu mu bind. mbaa budul lu mu portu. loolu loola ba mu jógee fii dem ci liggéey ba liggéeyam booba le ba mu jógee fii dem ci liggéeyam booba da ko bind bataaxel boo xam ne ak xasida la da ko boo xam ne ak xasida la lam ko wax ci tarjumaan ji rek lam ko wax ci tarjumaan ji rek doy na doy na dafa wax ni mi ngi jógee ci moom ndax dafa wax ni mi ngi jógee ci moom jëm ci ki nga xam ne jëm ci ki nga xam ne allaci la muy xaalifu moom moo so wuuteeg moom benn yoon ci saxaabihi wala kibarihi ci bi mu nekkee ndaw ak bi mu nekkee mag ibrahima ibni walidi muhammadin te mooy ibrahima di doomu sama baay muhammad salaamun yuraqqihi nuyoo boo xam ne dana ko yéege wa man maahu min al muridin ak ñi mu àndal ci ay taalibe wa ak nuyoo boo xam ne tasfi sadra dana sellal dënnam wa tuyassiru amra dana jàppandal mbiram ci biir xasida ga nag ci biir xasida ga nag ca la jàngale ca la ko digalee jàngale bi mu wax ko ni. mu wax ko ni. naa day tukkal yow ma bi Ibrahim an dim fatan yan fa aw tafhim. mu ne ko maa ngi lay woote ci sa turu bopp muy Ibrahima li la jàngalal képp koo xam ni nangu naa mën a jàng. mu am ca nag. mu am ca nag. weneen bayit. weneen bayit. woo xam ni woo xam ne. da ko wax ne ida ataaka aduwwi kitaabi. fa karrimil kitaaba bil mataabi booba daf ko caa wax ni ko jamono boo xamee ni yow sama përëgum di mi bu sama bataaxel bi ak see si yow na nga ko terale tuubaat ci borom bi nu bokk dund. bi kon nag përëg moomu moo ko wax. ñi nga xam ne dañoo yeewu ci xam-xam. ñi nga xam ne dañoo yeewu ci xam-xam. dañ koo werante. dañ koo werante. sëñ bi ñibbisee ba nekk gànnaar. bu sëñ bi ñibbisee ba nekk gànnaar. ku ñuy wax sëñ Omar Gueye. ku ñuy wax sëriñ Omar Gueye. rahimahullah rahimahullah def na bokk na ci ñi nga xam ne bokk na ci ñi xam ne sëriñ bi da leen bàyyi woon ak ceerno sëriñ bi da leen a bàyyi woon ak ceerno dañ koy waxtaane ci ëtt ba ba ñu koy waxtaane ci ëtt ba moo dem fekk sëriñ ba fa mu nekk ca wanag wa moo dem fekk sëriñ ba fa mu nekk ca wanag wa laaj ko ni ko laaj ko ni ko euh, xasida googu nga yónnee woon ceerno xasida googu nga yónnee woon ceerno ba nga nekkee ca tukki ba ba nga nekkee ca tukki ba da am loo xam ne sëriñ dañ ko doon werante da am loo xam ne nii njaboot gi dañ ko doon werante wa ataaka adudi kitaab yi ñenn ñi dañoo wax ne mu ne isa ataaka adudi kitaab yi ñenn ñi dañoo wax ni dañoo wax ne loxo li mooy téere bi da ngaa wax ni loxo li mooy téere bi ñoo ko xam nga kon ñun ñi jàng xam ne kon mooy badal kon loolu mooy badal boog waaw ñenn ñi ñenn ñi dafa jublu ni ko yow mi sama loxo ñenn ñi de daf koo jublu ni ko yow mi sama loxo bu téere bi ñëwee bu téere bi ñëwee mu ne ko mu ni ko la ma ca jublu la ma ca jublu moo di yow mi sama loxo bu téere bi ñëwee yow mi sama loxo bu téere bi ñëwee loolu moo leen àtte loola moo leen atte mu dellu ko waxaat mu dellu ko waxaat ku ñuy wax mat jëng xasan ku ñuy wax sëriñ mut jëng mu yebale ko ca gànnaar mu yebale ko ca gànnaar ñi ko na nga dem ca réew ma ñi ko na nga dem ca réew ma am na fa sama yaari rak am na fa sama yaari rak di sama ñaari taalibi bi sama ñaari taalibi ku ci ne na nga dem fi moom am lu mu ko wax ci moom ku ci ne na nga dem fi moom am lu mu ko wax ci moom mu di borom daaru mii. mu di borom daaru mii. booba ma nga daarul mën naan. ma nga booba ma nga daarul mën naan. mu ne ko bàyyi Seex mu ne ko bàyyi Seex Anta. ma nga càqami. ma nga càqami. ku ci ne na nga dem fa moom. ku ci ne na nga dem fa moom. am lu mu ko wax. am lu mu ko wax. la mu ko wax ci borom daaru nag. ko wax ci borom daaru bokk na ca nii. bokk na ca nii. Ibrahima abdi yal ay man. mu ne Ibrahima mooy sama përëgum di joor. ginnaaw loolu itam. gannaaw loolu itam. bi mu dikkee. bi mu dikkee. am na bataaxel bu mu ko bind. am na bataaxel bu mu ko bind. boo xam ne doy na seere ci diggam ak sëriñ bi. boo xam ne doy na seere ci diggam ak sëriñ bi. da ko wax ni. da ko wax ni. mata taqa aynuka ala haadihi al-huruf. saa bu bët tegoo ci araf yii may bind. فتيقن na nga wóolul bi anna kaatibaha raadin anka na nga xam ne man lii di gërëm naa la lool gërëm laa sax ta ba'da ngërëm lu dul ànd a teeku tànja wa annahu taalibun lak te maa ngi lay sàkkul min allahi tabaraka wa taala yàlla mu barkeel mi maa yaxbitu ko fii fi jamihu amsalik loo xam ne mboolem say morom daañu la ci ñee fatit nafsa kon nag na sa xel na sa bakkan wa na sa bët sedd wala tasukka te bul sikk mukk fi kaw ni haada ci nekkug lii ma wax min rabbika ilayk di jógee sa borom jëm ci yow ak wa sama intermédiaire rek wallahu ala ma naqulu wakil yàlla ma wax jóge fii dem gànnaar ba mu ko yeewee foofe ba mu ko yeewee foofe muy dellu ci réew mi muy dellu ci réew ko ni da ko bu bu yendu jotee bu yendu jotee na nga yendu na nga yendu bu fanaan jotee bu fanaan na nga nga fanaan fii nga jóge fii nga jóge ba ba ngay dem sa kër ba ba dem sa kër ku fi bëtam dal ci yow. ku fi bëtam dal ci yow. du gis safara. du gis safara. yaakaar naa ko laaj sëñ Abdou des na ko ko nettali. yaakaar naa ne ko laaj loolu sëñ Abdou danañ ko ko nettali. ma gis itam. ma gis itam. bataaxel boo xam ne. bataaxel boo xam ne. ak denc mbootam. ak denc mbootam. ak mën a sàmm lañ ko dénk. ak mën a sàmm la mu ko dénkoon. yegg na ca foo xam ni mësi su gis ku na mel. yegg na ca foo xam ni mësi su ta gis ku na mel. ndax man. ndax man. dund naa moom fanweeri at ak juróom. nee na dund naa ak sëriñ ba fanweeri at ak juróom. te bataaxel boobee. te bataaxel boobee. musuma dégg sax ni am na ko. musuma dégg sax ni am na ko. ginnaaw bi mu fi jógee. ginnaaw bi mu fi jógee. ba ñuy seet ay mbiram. ba ñuy seet ay mbiram. ay ay téeréem. ay téeréem. dañ gis bataa bataaxel boo xam ni. lanu gis bataaxel boo xam ni. sëriñ bee ko bind ci loxoom. sëriñ bee ko bind ci loxoom. wax ni. wax ni. maa haasal xatta ku gis mi le mbind bila naqlin ci lu dul ak toxal ko fii wala wasitati amul kenn ku dox diggante ba fa innahu yughfaru la nga xam ne daañu ko jéggal bu ëllëgee am na fii boo xam ne itam am na fii boo xam ne ni itam dafay yoroon li ñuy wax ay baax dafay yoroon li ñuy wax ay baax eh, war naa mat defe naa juróom-ñaar xaw daal fàtte naa limb war naa mat daal ab limb bu àgg ci juróom-ñaar yu góor ak yu jigéen yu góor ak yu jigéen daanañu fi nen defe naa loolu defe naa loolu ñu ko mas a jox sëriñ bi bëriwul ñu ko mas a jox sëriñ bi bariwul mu yónnee ko ko njaareem mu yónnee ko ko njaareem ba demee ba ñu demee ku ñuy wax Omar ku ñuy wax Omar Diop. te ña ko yóbbu woon la. te ña ko yóbbu woon la. rahimahullah. yal na ko yàlla yërëm. nee ba ñu nuyoo sëriñ bi. nee na ba ñu nuyoo sëriñ bi. di waxtaan ak moom. di waxtaan ak moom. dafa am mbég lool. dafa am mbég lool. di leen laaj ceerno rek. di leen laaj ceerno rek. ana ceerno. ana ceerno. ba yàgg mu ne leen. ba yàgg mu ne leen. ànd ak man doy na. ànd ak man doy na. waaye ànd ak ëpp na. ànd ak ceerno moom ëpp na. mais bi mu waxee loolu nag. waaye nee na bi mu waxee loolu nag. Omar nee nu jaaxle. Omar nee na nu jaaxle. mu waxaat mu waxaat ko. mu ne leen. mu ne leen. li tax ma wax leen ko. li tax ma wax leen ko. ku ànd ak man. ku ànd ak man. danaa la fay Ceerno Fay la. danaa la fay Ceerno Fay la. waaw kon boo amee ñaari fay kon xaw kon boo amee ñaari fay fay moom day ëpp. ba ñu dikkee. nee na ba ñu dikkee. nettali ko sëriñ bi. nettali ko sëriñ bi. ba wax ko ni ko nun daal wax na nu lu nu jaaxal lool. ba wax ko ni ko nun daal sëñ ba wax na nu lu nu jaaxal. ñu nettali ko ko. ñu nettali ko ko. mu ni leen loolee day. mooy mooy dëgg. li ma leen ci jox tegtal. te li ma leen ci jox tegtal. moo di sëñ moo di sëriñ Touba. du wax mukk lu neex nit. du wax mukk ngir lu neex nit. lu mu wax rekk dëgg la. lu mu wax rek dëgg la. yàllaa ko wax. ko wax. loolu it am na ko ci moom. loolu it am na ko ci moom. boo gisee nag ma di ko wax. nee na boo gisee nag lii ma di ko wax. du caageen di ko yëkkati. du caageen nag ngir di ko yëkkati. bokkul sax ci ak nite. ndax bokkul sax ci ak nite. sa waajur nga di ca wax loo xam ne day mel ni da nga koy yëkkati. sa waajur nga di ca wax loolu mel ni da koy yëkkati. ndax moom jërul yëkkati. ndax moom jërul yëkkati. yàlla ak sëriñ Touba yëkkati nañ ko. yàlla ak sëriñ Touba yëkkati ko. Euh, bañ di ko feeñal bañ di ko feeñal yàlla sëriñ feeñal nañ yàlla sëriñ Tuubaa feeñal nañ ko ala raxam an fay xaasidin wa muaadi ak nag lu mu naqari naqari noonu baag iñaankat ya loolu am na ko ba noppi loolu am na ko ba noppi kon nag kon nag bu ngeen gisee ma di ko wax yéen ci moom bu ngeen gisee ma di leen ko wax yéen ñi ci moom ibrahima alayhi salaam ibrahima alayhi salaam nabiyullah yonantu yàlla ba dafay wax ci alquran dañ koy xisaam boobu. dañ koy wax ci alxuraan ci xisaam boobu. is qaala Ibrahima. ba yàlla waxee ba Ibrahima wax naan. rabbi arinii kayfa tuxyil mawta. yàlla woon ma nan ngay dundale ñu dee yi. qaala awalam tuumin. yàlla ni ko xanaa da ngaa gëmul. qaala bala. mu ni ko ah kay. na li yatma'inna qalbi. waaye damaa bëgg sama xel gën a dal rek. moo tax yéen itam. moo tax yéen itam. bëgg seen xel dal. bëgg seen xel dal. jàpp ci moom bu baax. moo tax ngeen jàpp ci moom bu baax. te ngoy ci moom. te ngoy moom. te jàpp ko bu baax. te jàpp ndax nit kat boo koy wut. ndax nit kat boo koy wut. jàpp ca loxol ndey joor la. jàpp ca loxol ndey joor la. war nga caa jàpp bu baax te ngoy ca. war nga caa jàpp bu baax te ngoy ca. ndax bi sëriñ bi demee ci géej gi ndax bi sëriñ bi demee ci géej gi am na ci mag ñi ñoo xam ne am na ci mag ñi ñoo xam ne dañoo waxtaan seen waxtaanu bopp dañoo waxtaan seen waxtaanu bopp ba xam ñuy def ba xam nañuy def am ku leen ne man de am ku leen ne man de ku ne di tudd nit ku ne tudd am ku leen ni am ku leen ni man de su may xëñ nit man de su may xëñ nit fa ma fekk mu summi ko fa fa ma fekk mu summi ko fa summukaayam nekk fa summukaayam nekk fa fa laay toog nit ko fa laay toog nit ko <laughs> ñu daal di ànd dikk ci Ceerno. ñu daal di ànd dikk ci Ceerno. loolu nag. loolu nag. li ma leen ci wax rek. li ma leen ci wax rek. jarul feeñal. jarul feeñal. jarul yëkkati. ndax moom am na ko ci yàlla Sëriñ Tuuba. ndax moom am na ko ci yàllaak ak Sëriñ Tuuba. nan góorgóorlu bu baax rek kon nag nan góorgóorlu bu baax rek te sax ci lislaam tey sax ci lislaam te fonk taalibe gi te fonk taalibe gi te itam te itam njaboot gi lii ma waxoon njaboot gi lii ma waxoon nañu leen xamal alquran ak tawxid nañu leen xamal alquran ak tawxid ndax euh, damaa gis hadis boo wax kullu mawludin yuladu fil fitra wa innama abawaahu yuhawwidaanihi wa yunassiraanihi wa yumajjisaanihi nee na dafa gis addis buy wax ni doomu aadama jépp joo xam ne judd na mi ngi judd ci kaw diine nare bàyyam ñoo koy soppi bi yahut mbaa ñu soppi comme majoos mbaa ñu soppi comme nasaraan rek ma gis nag loolu ma gis nag loolu mu xaw a dox ba dikk ci tariixa yi mu xaw a dox ba dikk ci tariixa yi ak turuqu suufiya ci tariixa yi suufiyanke yi ndax ndax doo xam luy diine doo xam luy diine doo xam luy lislaam doo xam luy lislaam doo xam lu di taalibe xam lu di